propriété bi dem sol luy woyof ñëw nga bloqué ko ci porte bi il faut que nit ne la c'est le propriété de de pour nga may ko mu kii il faut qu'on arrête cela mm-hmm. il faut considération ak suñuy relation yi mu sincère faal mm-hmm. ñu bañ ko teg ci am-am sinon dinañ tam lii santan te du fi jóge mm-hmm. loolu laa amee lu may introduire soo Aïcha jërëjëf Prosper ñu bàyyi la yow tamit nga introduire ci thème bi nga xam ne moom lañ teg tey merci beaucoup madame Diallo de rien c'est moi comme ni ko benn waxee ah. Mm-hmm. dañuy waxtaanee lu am solo. très complexe à la fois. Mm-hmm. dans notre société moderne. man may commencer di wax ne. moderne. si. Mm-hmm. dans notre société moderne. may commencer di wax naan ñun ñi ñëpp yàlla ku mu bind rek xam na li la doy. su la joxee lu ëpp la doy c'est pour nga joxe yàlla. ku ne xam na li la doy su la joxee lu ëpp li la doy c'est pour nga joxe. Mm-hmm. ndax yàlla jox wàccul kenn jox kenn 1000 francs toujours am na ku mu koy jàllale. bu la joxee lu ëpp rek pour nga joxe la looloo tax sax mu indi asaka nekk loo xam ne force la ci jullit force la ci gëm ci ku ko gëm asaka maanaam nga am ba denc denc boobu at ba at fekkaat ko fa. nee na da am loo ci war a génne surtout rek pour wax rek le sens du partage. donc loolu lu lu lu lu fondamental la mais mais boobu laay taxaw nag kan nga war a jox ak noo ko war a joxe foofu la débat bi nekk ma wax sànq effectivement ma dégg sànq benn wax lu am solo ah di wax ne nit mer na nit fekk ne da nga koo soxla te faju fajalu la ko mais nag benn attention loolu ñi koy def duñ ko def gratuitement. Hmm. déedéet toujours dafa am fu ñu koy teg ndax dañuy dund ci société boo xam ne dafa bëri société sàmb àllar. moderne. may wax ne encore une fois daf ñuy dund ci société boo xam ne mooy société wu faire semblant. moderne. faire semblant de croire à Dieu faire semblant d'être ton ami faire semblant bokk ak yow. faire semblant bokk lu ñu gëm faire semblant même dimbali la fekk dimbali wu la fondamentalement man dama noonu laa koy tuddee man c'est di c'est c'est nous vivons un monde de du, du faire semblant modernité si parce que souvent di di nga bokk ak moom soo fi wax na ko parce que man dama gëm ne su la yàlla tegee ci yenn martaba yi defaloo ko yow lu tax mu jox la loo mën a joxe kële ñàkk koo defal lu tax mu xañ ko moom donc dafa am ci marta bu mu la teg da koy njëkkee si say mbokk loolu laa gëm man olof njaay ne diw baax na wala mbokk ndax baa mbokk yee ko wax ñu dund société boo xam ne nag loolu nekk euh, euh, lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy ñàkkal fayda la pour la bonne et simple raison c'est-à-dire yow mi fekk sa frère sa mu leer na kii yeewee na ndimbal nga dimbale ko xëy na doo ci am ngërëm ndax dañuy jàpp ne loo war a def la mais boo dimbalee ko warul dimbale bopp koñ bu mu yem ak yow ne la eh, eh, eh, ne la jóoba jubba bërki dem ba rek nga ma nga ma nga ma defar ay teraanga rëy parce que en réalité loolu nga bëgg ñu ko wax à chaque à chaque chaque coin de rue su ko defee su ko say mbokk déggee xam ne prospère mi ma dem demoon këram bërki dem ba kat mu gàntal ma ordonnance su trente cinq mille bërki dem ba seet nañ ko muy baatare euh, grand théâtre cinquante mille francs looloo tax ñu lay sikk généralement généralement quant à la voiture ak si si oto ak kër mooy définir mën-mënu nit un véhicule de cinquante millions euh, c'est pas à la portée de tout le monde. mais ça de kii euh, moyen de transport quoi. oui certo moyen de transport moyen de transport et pourtant et pourtant euh, mon cher ami. booy jënd booy jënd booy jënd oto cinquante millions dañ fiy bàyyi njaga njaga da ngay romb toujours njaga mais doo ko jël. te de transport la. mais je veux dire que. Mm-hmm. Euh, moyen wu nit nit nit ki ni muy évoluer mooy définir am amam may wax encore une fois que li ma gëm man moo di am am day jëkkee d'abord ci say mbokk lu tax ndax loo mën a yor mu mu mu yeyoo néew doole rek soo jeexee sa juróom-ñaari mbokk juróom-ñaari mbokk rek gis ku ko yeyool barka borom Tuuba maa la wax loolu du dëñ ah. loolu laa gëm man na ñu bëgg mbokk beneen bi mooy c'est daal mbokk googu may wax li tax nga man li man ma gëm ne da nga cee war a njëkk yàlla ne loolu man sama alal la man loolu mooy alalu yàlla mbokk mbokk boo seet loolu li ñuy wax yàlla yëpp mm. ñun ñi mu sàkk sax ñu gënal ko ci lépp lu mu bind sax du ñu alalam ñun mm. ñun ay jaamam lañ yàlla daf ne man mbokk mooy sama alal mm. moo tax ku ko dog maa lay dog man ndax Prospère bokk naag Benoît Benoît décidé wu ko Prospère décidé wu ko da ngeen di yeewu rek nag xam ne ñun la sa yaay ak sa seen ñaari papa yee bokk nangam loolu yàlla moo koy décidé. mu ne ku ko suuxat nag. ginnaaw nee na ku ko jox moo koy fajal boppam. exactement nee na ku koy suuxat askan wa nga bokk yaa cay mujj. exactement loolu kon propriété yàlla la mbokk moo tax mu wax ci lam ca wax taxaw am taxawaay bi mu ci taxaw. loolu soo creusé ba ci biir sànq effectivement per wax na ko mais ñemeñul dem jusqu'au bout des choses. bul ne ñemewul. bul ne ñemewul de. bàyyi ko rek mu yegg demal. li tax may la ñeme ñoo fi nga fi nga nekk. parce que sikk nga sikk nga ku am alal te gërëmoo comportement am. ba ci yegg sax isolé yaay isolé papa. yaa ngi dégg. ndax jabar ndax ndax beew. ndax ay xarit yu bees. parce que loolu moo amaa dans notre société. nit bu la yàlla may as tuut da ngay changé xarit changé yaay changé papa. bari na ci de waaye olof Njaay ne ku la tàggalee say mbokk ku ne ci ay mbokkam la la jëme moom ci ay mbokkam la la jëme n'est-ce pas ak ay dëgg waaw ku la tàggalee say mbokk yow ci ay mbokkam moom la ci ay mbokkam te amaatul la comme ni ko Sophie waxee des fois nga am ay mbokk yoo xam ne wegguñu la lijjantiwuñ la waaw seen yoon nekkul ci yow ba nga ko soxlawee boo demee ci ñoom ñu neenal la boo amee am tuuti rek tuuti na sa des ko tuuti rek ñu yaakaar la rek sama ampaañ nga ak sama nijaay nga ak sama bàjjan gi commencé. nitu léeg maa li pour lan. merci beaucoup pour lan ma tontu la. olof Ndiaye nee na ko olof Ndiaye nee na koo bëgg a àndal da koy xaar. koo bëgg a àndal koy xaar. da nga muy benn. bu la yàlla taxee booy kat bi ne. je crois que kii la jaal monsieur Allé. Mhm. su la yàlla taxee ngay def. Mhm. doo tàyyi doo maar. Mhm. su la ngistal taxee ngay def nag da ngay tàyyi léegi nga maar. bokkal ak nit mu dëkk ci di sikk. dëkk ci dëkk ci di la ŋàññ defal yàlla tax bés dana ñëw mu xam ne kat effectivement kii ni mu may jàppale yàlla doo nga tax mu tax di ma jàppale loolu nag généralement xam la moo tax mu xaw a metti ci xol parce que alal ci xol lay jógee mais kii def te xaarul ko ko gërëm boo ko waxee sax ma sàmbaag ma démb dégg ko sax mu am lu ko metti kooku effectivement euh, bariwul suñu société ñi ñi bëgg ñu leen tudd mooy li ñu wax sànq ci euh, si suñu suñu mbokku euh, artistes yi bon wax nga ci li nga ciy wax du ma ci appesantiru hmm. n'est-ce pas mais li ma bëgg a wax rek mooy moo ko wax de waaw ñi bëgg ñu leen di tudd mooy ñi nga xam ne yàlla taxul ñuy def foo leen fekk ñu ngi def ay chèque à blanc en pleine soirée wala di baatare hmm. yaa ngi dégg mais bu la yàlla taxee ngay def ma sàmba du xam ma demba du xam te boobu la yàlla lay fay yàlla nee na li ngay def heure bu heure bu heure bu bàkkaar yi taxee nga di ko def man yàlla ma képp sama bët di la bu ma la taxee ngay def nag dinaa la fay fu kenn nekkul. Mhm. ndax tànk yaa tànk tànk gëm nga ne. tànk yaa ngi gëm ne li ma la jox ëpp na yow li nga soxla. Mhm. mission bu ma la jox moo tax nga di ko jàllale. du ma noppi di la jox yow pour ngay jàllale. mais comme li ma doon sànq kan ngay jàllale moom laa wax sànq ne papa xuus na si. Mhm. ba yegg sax ci jur boo isolé. ma ñëw rek rapidement ci contexte euh, Europe bokkul ak bu Sénégal. xëy na xëy na mun la ko comprendre Sénégal mais Europe mun nga comprendre parce que foofu ñëppay xëy dem soo amee mag mu nekk ci benn mu toll ci benn âge bi boo ko bàyyee ci kër ga sax yaa ngi ko yaa ngi koy exposé au danger ndax mën na def crise mën na def AVC mën na def malaise lu ne mën na ci am te tubaab ñi bokkul la ñun parce que loolu boo tëjee am màgget ci kër dem ñëw fekk mu am malaise malaise ba yàlla moom bakkanam dinañ la topp ba homicide involontaire mhm. loolu moo tax souvent mu nekk ci genre kër yooyu ngay wax day ëpp sécurité di te proche doguma la yàlla bu la yàlla dog ñaar genre yooyu ñoom ñooy fayal seen bopp de xaalis kese lañu oh. si <laughs> si man ñi ma ci gis sax eh. am na ci ñoo parce que foofu dafa nekk do nekk domaine boo xam ne euh, am fa booy wala jànq c'est luxe bokkul ak fii nga xam ne da am jànq mu lay dawal safaak marwa nga fay ko trente mille wala trente cinq mille mais dafa am SMIC boo xam ne sañoo ko passé c'est entre huit cent et mille euros quelquefois même mille et quelques euros donc pas offert à tout le monde quelquefois sécurité bi mooy moom mu nekk foofu balaa muy def malaise sa ginnaaw parce que dëkk la yoo xam ne dang-dang ji bëri na ba ko xëyee da ngay dem kenn du fa toog ah. loolu dama ko doon brosser rek mais fi ma jëm si ak yow mooy waaw man de du ma tàggoo ak sama ndey sama ndey ci sama wet oui je suis d'accord ak toi déggoo ma ne la contexte Afrique contexte Sénégal mën naa wute contexte contexte Europe parce que bi ngay wax sànq maison de retraite nga wax loolu amul Sénégal Europe la am waaw man am lu ma la ci xaw a leeralal tuuti mais yoon ngay gis fii comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. waxu ko. Mm-hmm. bàyyi euh, doo yaay yaay ak baay sonn. Mm-hmm. yaag ñoom yaag ñoom yaag ñoom comme ni nga koy faral di waxee. ci bulletin de naissance. waaw ba ci bulletin de salaire. ba bulletin de salaire nga jéggi baay. waaw ndey. na yaa ngay yóbbul yow ki nga yaakaar ne moom effectivement moom nga yaakaar àdduna ak alaxira. muy la père déggoo li ma dégguma ko de. dama ne. Mm. nit yàlla may na la as tuut. nga jéggi ndey jéggi baay na yaa ngi koy yóbbu ki nga xam ne moom nga yaakaar. n'est-ce pas mu ci am ñoo xam ne nag heure bu la bu heure boo ñëwee ci ñoom ñooy la demal jox sa ndey demal jox sa baay sàkkul seen ñaan sàkkul seen gërëm boo ñëwee ma mottalin la gis nañ ko fi du jeex yaa ngi dégg mais loolu yëpp ay mal la yoo xam ne c'est des yoo xam ne ñu ngi suñu société du fi jeex nit yàlla wërsëgal as tuut nga préféré di ko def ci àll bi bàyyi say mbokk yi nga xam ne jegeñ nañ la ak jox jox ñu la jegeñul sax mais man li ma gëm man moo di comme ni ko olof Ndiaye di waxee way si sa we euh, bay si sa weewu tànk bay say oom bay si say oom mm-hmm. moom laa gëm nag en toute circonstance mm-hmm. parce que soxla bi nga soxla bi biñ la diis benn yoon ñaari yoon fajuloo ko te heure bu ñu toog parce que xanaa xamoo ne Benoît maa ngi la koy wax te foofu lay daanalee gis nga quelque fois mbokk yi nga xam ne ñooy am une mauvaise euh, idée ci yow wala une mauvaise appréciation li ngi leen di gàntal yow dañuy dégg say teraanga feneen ndax fii Sénégal la dara du fi umpe ay tu es le petit benn mu ne ah mu ne sa grand frère laa dajal démb vraiment dama dugg jàdd koñ rek vraiment mu ngëbal ma lu am solo. waaw mais ku la wax ne ah. instant boobu benn ko. moom laa wax. du loolu na nekk. mu jox ko man man dama gëm ne. soo ma ñaanee lu ma yorul man. heure bu ma xamee la la nekkoon ko yoree jox la ko. la ma nekkoon ci man ba ma gàntal la. bu nekkaatee ci man ma ñëw vers toi. parce que dañuy wax Sénégal bu bëri Samba Allaar Samba Allaar. waaw àll bee koy gërëm. li nekk ci man ba mënumaa faj soxlay tey mhm. bu ma ko yàlla teggee man maay xool ndax soxla boobu faju woon na wala déet parce que nag damay bëgg souvent mu nekk soxlay farata mais mais xam nga juste damay xaw a damay xaw a jaxasoo des fois euh, par exemple fi nga nekk nii parce que bu ñu nee dañuy dimbali te yàlla rek tax mhm. euh, léegi dimbale bi ngay dimbal ci ki nekk sa famille ak dimbal bi ngay dimbali keneen yaa a une différence non à part que à que amul amul différence fondamentalement sur la forme mais dans le fond am na différence ndax dañuy wax ne ku ko yeeyal moom laa la wax sànq ne la moom priorité l'ordre de priorité moom laa la wax sànq ne la junni bi nga yor yow junni bi nga yor war see dimbale ku néew doole parce que ki nekk sa famille mën na ñëw par exemple ñaan la ne la dañ maa ndayale wala dañ maa magale wala dañ maa lii wala dañ maa laa wala dama bëgg a jënd lii ki nekk ci biti ñëw ne la franchement dama am ordonnance wan la ko nga xam ne c'est une question de vie ou de mort s'il y Euh, tel quel li nga war a def euh, pour man ci xel bu rafet mooy dimbali ki feebar ba pare waaw moom laa wax donc ces ko déggee par exemple naa room ne la prosement lay gërëm de euh, yow de li nga ma dimbali nga ma démb te vraiment xamoo foog nga jëlee yaa ngi ànd ak sa frère boo xam ne démb ñaanoon na la cinquante mille pour génn dem boîte wala genre mayoo ko ko dans sa tête c'est kii mm, mm, sàmba alaar la parce que démb rek maa ngi ko ñaan xaalis mu bañ alors que mi ngi jël di ko jox keneen alors que affaire yi ñoo bokkul est que nit pros bu a est-ce que booy daf la war wax lu mu koy doyee ba pour nga war ko may. il n'est pas dit que parce que Safia dafa ne ngay may sa frère mu ñaanoon la cinquante mille. pour dem waaw ne est-ce que booy may nit da war a xam exactement lan la koy doyee. man moi je dis oui man sama frère bu ñuy doyee. lan la koy doyee. moi je dis oui. waaw baal la pourquoi. nañ ko man bu la yàlla nattoo ci naan sàngara nga ñëw di ma ñaan xaalis du ma la ko may. ah nga xam ne loolu la koy doy. oui certo. moom je il est correct ne la kat dama bëgg lii. man du la ne ndax loo ko doyee. da nga ma ñaan am naa ko ma ne la am aw ma ko ma ne la aw ma mais du la laaj mukk lan ma koy doyee. non y a des gens qui viennent pour te dire. personne ne fait pas comme ça responsable une personne. waaw jox ma naan waaw loolu. mais loolu la rek benn. Ah, ok parce que ki ki la ñax am na droit ni nangam laa koy joxe mhm. loolu ku nekk tey mais comme pour revenir sànq ci li madame Diallo doon wax mhm. moo tax ma tëjee sànq ci soxlay farata mhm. parce que soxla soxlay farata ak soxlay caaxaan soxlay farata bi mooy mooy primé sur ça dëgg yaa ngi dégg xaalis fajul lan la ñu wax xaalis fajul dee gàcce lay faj sa sœur waaw exemple rek laay joxe oui war a dem foo xam ne dafa war a joxe loo xam ne pour te parce que dafa kooku defaloon na kooku loo xam ne moom war na ko fayaat damay wax rek xam nga léegi foofu am na loo xam ne ah. tamit mun nga ko si dimbali parce que ah. euh, dignité mi ngi fa ba pour mu xëppante ji assi non wax ma xëppante ji assi si leneen ak leneen fu lu bari dignité mi ma nga def loo xam ne mu dem defi ko ay fooy ak fare man xam anduma si yooyu yàq la dans ce même moment benn dans ce même moment